Ahmed Khalifa Niass lu mu wax accusation bu graaw la accusation boo xam ne amul benn justification soo ko laajee mu joxul la justification ndax ñun dañu former ay ay terroristes envoyé la ci biir àdduna ñuy xeex ci Syrie ci Libye ci feneen soo ko laajee mënul joxe benn autorisation amu ko mënul joxe benn justification amu ko kon nag dafa accusé jàkk bi accusé ethnie soninke kabilatu soninke famille soninke entièrement bi rummatiha lépp la accusé suñ dëkk yi fii France feneen parce que fii mooy siège saraxule yi fii mooy siège saraxule yi ku jóge village yi fi ngay ñëw ku jóge Europe fi ngay ñëw ku jóge Amérique fi ngay ñëw kon nag ku attaqué jàkk bi saraxule yépp nga attaqué Ahmad Khalif loolu la def soo attaqué benn nit boobu problème personnel la mun nañu wax ne problème personnel la mais ethnie entièrement soo nii kee soninke seen liggéey mooy former ay terroriste envoyé la ci àdduna ñuy dem di xeex di di rey ay innocent ban preuve la am ci lool est-ce que am na dalil ci lool mais xanaa moom daf ñu xeeb ndax ñun xam ñu dara moo tax mu def loolu accusation bu graaw la mais kenn mën na ma wax ne mais oustad attention dafa ne avenue Malick ici mais seen jàkk bi du seen jàkk bi rek moo nekk avenue Malick si am na jàkk omarienne am na grande mosquée oui soo waxee loolu danaa la wax ne dafa ne jàkka salifite wahabite ñaari jàkk yi jàkka sunnit la eh, plutôt jàkk jàkk jàkka tijaani la du salifite du sunnit kenn doo ko wax kon nag suñu jàkk bi la bëgg wax mais dafa doon tourner à gauche pour mu def mise en garde ëllëg gi ginnaaw ëllëg su ñu ko attaqué mu ne non non man waxuma seen jàkk bi mais c' est c' est lu mu wax c' est très kon nag ñu ngi confirmer ne Ahmed Khalifa Niass lu mu wax nanguñu ko d' accord ñu ci ñun du ñu ay reykat nit xamuñ loolu suñu école dafa autoriser par état ñu ngi am suñu autorisation ñu ngi xaar aussi reconnaissance. suñu programme mu ngi ci ministère de l' éducation nationale commission yi ñu ngi ñëw vérifier suñu école yi peut-être chaque chaque des des semaines ñu ñëw fekke élèves yi ci biir classe fekke directeur ci bureau toog waxtaan ak ñoom présenter programme bi su fekkee na programme dañu ko def pour ñu rey ay nit danañu ko gis kon nag lu mu wax d'accord ñu lu mu wax du dëgg dëppawul ak ak ak dëgg daf ñu tooñ touché suñ dignité mais lu gën a métti ci affaire bi mooy tooñ bi dafa omb beneen tooñ beneen tooñ bi président de la république la tooñ président bi nga xam ne population yi yëpp ñoo ko tànn def ko président de la république kon nag moom mérite na population ñu ñu respecté ko lan la wax ci ci président bi dafa ne président Macky Sall ñaari discours la am xam nga ñaari discours mooy lan koo xam ne da ngay wax dara fii après nga dem fale du ko wax leneen is mu ne ñaar discours la am premier discours bi mooy il est contre terroriste mu ne moom dafa contre terroriste lan mooy présenter loolu bi ñu defoon manifestation après après événement Charlie Hebdo en France président de la République française mu organiser benn manifestation af président africain yu bëri dem nañu suñu président de la République dem na mu ne boobu day présenté ne président bi dafa contre terrorisme contradiction fan la jóg mu ne dafa ñëw julli ci suñu jàkk bi jàkk terroriste la cest a dire il est avec terroriste dafa manqué président de la République respect loolu métti nañu pourquoi parce que ñun ñoo ko invité mu répondre suñu invitation ñëw fii julli ak ñun ku ko attaqué ci kaw loolu vraiment ñun nga attaqué d'autre part dañu dañu consulter benn avaca constituer suñu dossier Ahmed Khalifa Niass dana ko jox somation interpellatif mu confirmer li mu wax jàkk bi laa bu wax wala feneen laa bu wax su ne jàkk bi la tribunal moo ñu àtt su ne feneen la lool doy na doy na doy na doy na victoire doy na victoire koo xam ne dangay wax ne man ragaloo ma yàlla waxatuma leen nit saraxul leen du du du ñu passé sax pour cent de l'habitat de Sénégal bariwul nga ragal yooyu nga ne noo man waxuma la te fekke ñoom ngay wax loolu doy na victoire toute façon ñu ngi ci suñu du duñu reculer jamais au grand jamais kenn mënul tax ñuy reculer il faut projet bi ñuy jël mu àgge à la fin